yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf waami gi wër réew mi waar waar réew mi jaaxle gu mu jur ci ndakaaru rek jur na gu ko raw ca Touba yëral xët mu njëkk Vox Populi xibaar bu mitti te tiis la journal bi xëy joxe juróomi xale yu lab ci ndoxum taw mi ba jaare ca ñàkk seen bakkan yéen kaay bi xamal ñu ne ginnaaw gone gi laboon bërki démb ci inondation yi ca kër ñàng ak geneen gone gu jigéen gu ndoxum taw mi yóbbu woon ca kax ca sexaw ga ca Touba am na démb yeneen ñetti xale yu lab ba faatu ci ndoxum taw mi woon ca carrière ba ca Daaru Rahman source waa nañu xale bi faatu ci ndoxum taw mi keroog dimanche ca kër fukki at la amoon dimbu ci altine jiit am na beneen xale bu jigéen bu amoon juróom-ñaari at dëkkoon Mbuur demoon vacances Touba moom xale bu jigéen bi nee nañu dafa barastiku maanaam glissé tàbbi ci benn puits d'infiltration boo xam ne suur soit nee nañu wax nañu ne waa Touba ca kanam ñoo ko fa gasoon ci jamono joojee ci la ñu yégee yeneen ñetti xale yu faatu ci ndoxam taw mi ca Daaru Rahman te du loolee rekk mooy coono bi inondation yu jur ca ndax suur soit mi ngi na lu mat ñaari téeméeri famille yoo xam ne ci biti la ñuy fanaan ndax ndoxum taw mi di inondation yi moo leen génnee seeni kër ndox mu set mi seen di jox askan wi l'observateur xëy na ci ubbil yéenekaay bi journal bi mi ngi ñuy wax ne kër gi ñu dénk séddaleem ndox mi ci biir kër yi mu di seen o borom kër yu bëri guuxal nañu ko mer mu rëy facture yi ñu leen jox la ñu ne moo jéggeeti dayo ba tax ñu koy jooy ak di ko jooytu ci biir l'observateur ci borom kër yi ñaxtoo ko xultu am na kenn ku daan fay ci ndox ci ko ci 60 000 facture ub 149 919 000 ko ndil am ko jàpp ne waa seen o li ñuy def du dëgg du yoon te buñ leen ci seetaanee bàyyi leen ci ci wi la ñu jëm libération nañu fi mu nekk nii kay réew mi ceeb bi ak njëgam yokku na suukar si ak njëgam yokk na diwlin gi ak njëgam yokk na gaz bi leen war a tàngal moom it ak njëgam tàng jiira a def yokk gi ñu nemmeeku ci njëgu dund gi libération nee nañu kuréelu commerçant gii di association des commerçants et industriels du Sénégal nee nañu nañ leen ci keccet ba set wecc taqe wuñu ci laalewuñu wuñu ci ak yokk bu amee ci njëgu dund gi rek état bu Sénégal ne monopole gi am ci suukar si li fekk état bu Sénégal dindiwu ko suukar dana desee sàppaaral ci réew mi le témoignage mel ne ku naan ñu moom gëmul loolu li mu gëm moo di commerçant yi ci seen bopp ñoo nëbbu suukar gëmloo nit ñi ne suukar dafa manqué ngir bëgg yokk njëgu suukar si le témoigné nañu li koy firndeel moo di lu jege fan fanweeri junni tonnes yi suukar ma nga ñu denc ca magasin bu isinub suukar bi di compagnie sucrière sénégalaise te loolee ñu fa denc ci suukar bu ñu ko génne woon dinañu toog lu mat ñeen fukki fan ak juróom yoo xam ne kenn du déggati waxi suukar ci réew mi journal bi bind na état bi tàmbali na réagir ci njëgu suukar si ak ni muy yokkee ne bu weesoo ndajem conseil national consommation gi ñu wote tey jii ci talaata ji ngir waxtaane njëg yi état bi ajandeegum na taxe yi woon ci suukar si jóge bitim réew di dugg ci réew mi xëy dugg ci coowal suukar si ba bind ne état bi suukar na commerçant yi suukar si ak ni mu manqué ak it ni mu seere moo tax état bi jël décision teggi taxe yi la sine kay xëy xibaar bi ci xët mu njëkk ba wax ñu ne taxe yi woon ci suukar importé bi nguur gi ajandeegum na ko suur suwaa tegal ko ci ne dogal boobee état bi jël dana ca ñàkk lu mat juróomi milliard di koppar yu waroon a dugg ci économie réew mi bii di Moubarack Lô moo nekk ci Bougane Gueye Dany fekki na la grande coalition de l'opposition la tribune moo joxe xibaar bi ba xamal ñu ne moom jiital gëm sa bopp lu mat fanweeri parti politique ak i mouvement ñoo ko mandaté ngir mu dem ca coalition ba alliance bi ñuy wax ci diggante parti Pastef parti démocratique Sénégal ak taxaw bu Khalifa Sall Walf Quotidien nee nañu njaw ma ngi cee ndax ñoom ñett ñëpp ku ci nekk am na luy gàlle ci saw loos coowal biemal ak i Khalifa Sall benn employé boo xam ne journal bi nee nañu dañu ko fekk mu pandar boppam ca kees ku ba mu doon liggéey laata mu doon pandar boppam ba jaare ca faatu amoon na benn lettre bu mu bind bàyyi fa la mu bind ca lettre ba lise ko nee nañu moo di dane sii di amee lu ma tóoni benn bor moom ci jëmi boppam moo lekk sama un million deux cent soixante-neuf mille ci suufu lettre ba mu bind ca euro war siidi tiis lu nu seetlu fan yi ay ñu bari ci gune yi lap ci ay déeg euh, ci diwaan yenn ci Sénégal Touba Mbacké rek ci diiram ñaar ci fan ne mi fa juróom ñoo xamante ni euh, ñu ngi fa daal di faatu rawatina Euh, ci carrière u Daaru Rahman euh, fu ci mel ni Bakel ñaari DJ di animateur musique yu doon dem ci euh, ab gox benn bi war a jéggi fleuve Sénégal ñoo lapp ak seen gaal googu ñu nekkoon ci xibaar borom gaal gi rek moo rëcc ci musiba gi kon bokk na ci kon ay tiis yoo xam ne daal nemmi ne noon kon fan yi ci wàllu ay ay yeneen wàllu xibaar bokk na ci it ku ñu njortal am càcc ba waral ñu dóor ko balab fital mu faatu ci commune Daaru Salaam diwaanu saalum ay seede xamante ni euh, mooy wàllu ko càcc gi daal mu ngi fay xaw a bari waral euh, adjoint au maire bu diwaan gay sàkku ñu gën yokk taxawaay gi ci wàllum karange certe gi ñeel dund gi ak jàmbat yi boobaak léegi euh, bokk na ci ndaje bu ñu ci amal tey ji conseil national de la consommation fàttali ni consuméristes si boobaak léegi ñu ngi sàkku lu mel ci ministre bi ñu dénk wàllu jënd ak njaay coronavirus ak variant bu bees ci xibaar ñu daal di feeñal ca Afrique du Sud ginnaaw yi gëstu turwa point 2 ci xibaar laal na réew Afrique yu tugal yu ca bari xamagunu nag euh, li nga xamante mooy tolluwaayu coxoruk euh, googeek variant politique ge coalition gëm sa bopp taxaw na fanweeri parti ki mouvement politique yu ànd euh, booloo ci weti Bougane Guèye Dany ngir local yu nu dëgmal coalition beneen nit bu Pastef Seq ak PUR PDS taxawu Ndakaaru ñoom it fas yéene Euh, daal di jublu ci élection gox-goxaan yi tàmbali nañu seen i activité sax jéego bu njëkk bu ñu teg ko démb ci commune bu Golf Sud ci euh, Ndakaaru ci technique bi Abdoulaye Diop. ñu tàmbalee xibaar yi ak wutis ci Bakel ñaari ndaw nekkoon ni animateur euh, ci euh, rajo foofe ñoom ñoo daal di lapp ci fleuve Sénégal dex gi euh, ginnaaw bi nga xamante ne dañoo nekkoon ci gaal gu leen waroon yóbbu ci jaggi li di bërëb foofe ginnaaw lapp gi nag ñoom ñaari dijee yi ba tey kenn xamul ci lu nu ne feeña gunu kii di boroom gaal ga rek moo rëcc gum ci jéey joojee ci leeral ñu dem ba Tambacounda ak Moussa Oumar Gueye ñaari rëcc mu nekk nag bilangu benn gaal boo xam ni dafa këpp gaal googu nag mi ngi jóge woon ci Bakel doon jéggi li nga xam ni moom mooy fleuve Sénégal ngir dem fële ca wàll wala nga xam ni fa la jaagi li féete waaye nag ci jamono jooju nga xam ni gaal gi ma ngay jéggi fekk nag dafa awoon taw bu tar bi amoon ci Bakel taw boobu doon sotteeku ànd ceeg jamono ji seetlu nañu ndoxum dex gi dafa nekk li nga xam ni dafa gën a am doole ndaxte li nga xam ni moom moo fare ci dex gi daanaka nawet bu jotee ndox mi dafay gën a ba tax nag ñi nga xam ni ñoo fare ci département bu Bakel rawatina ci biir commune bu Bakel ñu ci bëri daal di dikk fi nga xam moom mooy ci xer tefesu dex gi doon nag seetaan jamono jooju nga xam ni way sapeur pompier ñu ngi def seen kamtalaal kàttan ngir daal nag teg gët ñaar ñi nga xam ne daal dañoo mujj lab nekk ci biir ndox mi ñu leen di jeex ki nga xam ne nag moo doon jow gi moom daal di rëcc waaye nag ñeneen ñaar ñi ñoom ba négé ni si kenn tegu leen woon ay gët waaye nag lu ñu mën a jàpp mooy ngelaw lu tar si nga xam ne àndoon nag taw ba tax na nag am na ay yàqu-yàqu rawatina yoo xam ni dañoo nërmeelu diggante Kidira ak Bakel Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. jërëjëf Moussa ñeneen ñu lab ñett ci néew yoo xamante ni ñu ngi ko daal di euh, feeñale ci carrière Daaru Rahman Touba Mbacké euh, ba yóbbu seen i néew hôpital Matlaboul Fawzeyni ci ñaari fan dong juróom ñu lap ci nga xamante ni mooy ndox ya foofee ca tubaa moo waral ku ci mel ni na colonel Cheikh Tine commandant brigade sapeur ba fa euh, di sàkku ci ñi nga xamante ni ñooy askan wi ak moytu rawatina way yi ñu gën a ba xel seeni doom ñu déglu ko euh, moom euh, lieutenant colonel Cheikh na ak euh, Pape Ball Guèye. ñaari fan yi ñu génn kat sapeur pompier yu Touba yi. woo nañ leen ci ay intervention yoo xam ne ay nit ñu lap lañu foofee ca Touba. bi ci jëkk démb la ci quartier bi ñuy wax Ndaamaatu. bi fukki waxtu ak juróom-ñaar jotee. benn xale bu góor bu toll ci fukki at ak ñaar. génnee nañ ko mu lap ñàkk bakkanam foofee ñu tudd ca Ndaamaatu. bi ci topp tey bi fukki waxtu ak ñaar jotee foofa ca Daaru Rahman woo nañ ñu ci xale bu jigéen boo xam ne mi ngi tolli ci juróom-ñaari at moom it daanu ci teen ñu génn ko mu ñàkk bakkanam sànq rek ci fukki waxtu ak juróom-ñett ñetti xaleel yu góor tolli ci juróom-ñaar ba fukk ak ñett ci ay at ñoom it euh, lapp nañu ci carrière Daaru Rahman boobu ñuy tubbee suuf si ñoom ñëpp sapeur yi génne leen ñu ñàkk seen bakkan kon boo koy xool diggante démb ak tey juróomi xale yoo xam ne am na ko jigéen ku nekk seen biir xale bu jigéen ñàkk nañ seen bakkan foofee sa Touba te lépp di ay lab loolee nag nekk situation boo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp a koy naqarlu rawatina ñun ñi nga xam ni ñoo fi nekkal état mu mel ni situation boobu vraiment doy na waar lool lool lool lool mel na ne Touba fan yi ñu mujj ndox mu bari daf fee wàcc ndox moomu moo jur risques yu bëri yu élevé yoo xam ne c'est des risques de noyade wala fiil yi daanu ci ndox mi mën naa jàpp nit ñi moo tax ñu leen di ñaax na leen nañu gën a xool xale yi nañu téye xale yi ndax dañoo nekk ci jamonoy nawet te jamonoy nawet jéey yi day bëri lieutenant colonel euh, Cheikh Tine euh, di ki commandé brigade sapeur pompier bu zone 2 ca Touba Mbacké ak euh, ay li nga xamante ni mooy digle jëmee ci askan wi way jur yi rawatina ñu gën a baaxel gune yi ci jamonoy nawet bi rawatina ak dex yeeg yeneen ak géej dégg yi ngeen baal ma ba di jur yooyu loraange yu ci mel ni gune yu cay lapp wàllu xibaar ba teg RFM bokk na ci ku ñu njortal ak càcc goo xam ne dañ ko mujj dóor a bala fital dimanche jàpp altine ji ci fi nga xamante ni mooy Daaru Salaam diggante Kër Moussa ak Daaru Xudóos diwaanu Kaolack ay seede ni euh, li nga xamante ni mooy euh, lanu ko doon toppee ko daal mooy nag woo xamante da koo sàccoon nëbb euh, fileek ak rawale ñeel nag woowee ginnaaw si la koy seede daal di gis waral taxawaay bi lu ci mën di am adjoint au maire bu commune ba moom Daaru Salaam mu gis sàkku ñu daal di gën a yokk laay li ci wàllum kaaraange di sécurité gi Ablaye Ndour lay wuyoo ñu teewlu ko Pape bay Diaw ni mu demee mooy lañ ma woo wax ma ne ma diggante Kër Moussa ak dëkk bu ñuy wax bi ñu laajtee dem si le lieu dañu fekk ne dafa am koo xam ne ci biir jote bi dóor nañ ko bal mu daanu ba far na ci ñàkk bakkanam biñ koy évacuer léegi nag bi ñu laajtee li ñu wax mooy ñoom béykat yi nekk foofu dañu demoon doon wër seen tool dem fekk nag bu ñu yeew ci biir àll bi ñu njort ne kiikat kat sàcc la ba mu ko defee ñu ne comme comme kii sàcc la nañ ko làqatu bu guddee dana jël si bi mu guddee nag sàcc bi ñëw di jël si ah, lam dencoon ba mu commencé jëmali ne jëmali ko moom itamit moom mu ngi yoroo fetal mu soqi bal wax dëgg yàlla avertir nañ autorité yi administrative waaye yi tamit gendarmerie avertir nañ leen le gars en question donc mu ngi en détention au niveau de la gendarmerie vraiment wax dëgg yàlla càcc gi métti na trop fii kenn mënatu fi yar jur loo fi yor rek ñu song la jël la te sàcc yi dañuy yor ngànnaay ñoom hésité wuñ dañuy fokkati sax suñ toll nii loolu moo tax ma ne damay profiter ci occasion wax dëgg yàlla ah ne nañu yokk kaaraange gi donte la kaaraange am na a a mooy nit ku am sa aussi nga mën a nelaw. ñoo weeg xibaar yu suba seeg RFM euh, wàllu yoon ak euh, waykat bi di ndaw li di Dieynaba Baldé ñu gën ko xam ci Dieyna moom dina daal di jaar tey ci kanamu tribunal flagrant délit Ndakaaru euh, dinañu ko attendoor ak rakkam wala magam Ali Baldé Moustapha Baldé xaritu mag ja Euh, lañ leen toppee nag bokk na ci wàllu li nga xamante ni mooy euh, fexey foqarti koppar ci euh, nit ki ci dudul coobareem jaare ci ay wàllug moo ay image am ak données yoo xamante ni ci wàllu informatique yoon daf koy tere wàllu càcc ak yeneen loolu lépp bokk na ci li tegoogum seen ndodd RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute pour bi gaaw ci xibaar wàllu koom-koom taxe bi ñu duppee taxe conjoncturelle daal nañ ko dindeen di talaata ji lay tàmbali ministre des finance ak budget euh, ñoom ñoo jox ndigal euh, directeur général douane euh, ngir ñu def lu ni li ko waral di yokkute gi ñeel wàllum suukar gi ci àddina yépp ak li nga xamante ni mooy càkkuteefu ministère du commerce ak PME sàkkuwoon lu ni ci kilifa yi waral kon ñu daal di ko teggeen di ngir ak oyofal ab diir diir weer ak genn wàll nag cinq jours lay am li ko tàmbalee kon fanweeri fan ci weeru septembre ba fukk ak juróom fan ci weeru octobre lay lay lay doon euh, ci wàllu woowu ba tey di koom-koom njëg yeeg tolluwaay lii am na conseil national de la consommation boo xamante ni ministère du commerce woote na ko tey jële ci talaata ji loolu nag ñu fàttali ni euh, ñu yëngu ci wàllu consumériste yi ñoom boobaak léegi ñu ngi koy sàkkoog certeeg dund gi Sénégal ak euh, ñàkkatam yenn ci marchandise ci ci marché bi ñu fàttali ni kon boobee conseil national de la consommation dina am tey ca CICES ngeen gën koo xamee foire euh, Ndakaaru wàllu wér-gu-yaram euh, ñu waxtaanee coronavirus ak xibaar yi tukkee ci Afrique du Sud ak variant beneen bu bees boo xamante daal scientifique yi ginnaaw yi gëstu ci laboratoire daal dinañ ko feeñal variante boobee ñu ngi ko duppee cinq point c point un point deux euh, ba fii nag xamunu li nga xamante ni mooy tolluwaayu coxor geek doole ji waaye ni ñu ko waxee ci xibaar feeñ na fu mel ni Afrique du Sud ak yenn ci réewu Afrique ca tugal na ko noonu Asie Océanie ak yeneen Hadj Ndate jok ci weeruk mai wee weesu la yenn boroom xam-xam ñu leen di duppee ay scientifique yu fekk baax ca ci réewum Afrique du Sud daal di détecté boobu variante bu yees variante bu ni mel ñoo ngi ko duppee C point 1 point 2 mu di ab variante boo xam ne nii bu ñu sukkandikoo ci waa Reuters ñi nga xam ne ñoom ñoo joxe xibaar bi mi ngi defi jéego ci yenn ci ay gox-goxaat di ay province nekk foofa ca Afrique du Sud waaye tamit ci juróom-ñaari réew yoo xam ne nii ñoo ngi nekk ci denduk Afrique denduk Europe denduk asi ak ca yi bu ñu sukkandikoo ba tey ci boroom xel yooyu variante bu yees bi dafa bari ay coppeeku lool maanaam multiple mutation naam sax ñoom scientifique ya ñoo ngay xamle ni seen saytu googu di liggéey ga nga xam ni def nañ ko ci seen laboratoire ci jamono ji jébbalaguñu ko ñeneen ci seeni naatangoo ngir ñu joxe ca seen xalaat ñu ca yokk sax ni xamuñu ndax wàllante ga dafa gaaw am déet wala sax nekk na variante boo xam ne nii lii di ñaq yi di maanaam vaccin yi mën nañ ko faagaagal am déet ci jamono ji sax ñuy xamle nii ñoo nga wéyal test ya ci biir laboratoire yi loola ngir fes yéene cee gën a am ay xibaar maanaam xam variante ba nu muy comporté wook lii di virus bi ndax lañ ca bëgg moom mooy fexe ba ami xibaar ci naka lañ koy neutraliser ak ay anticorps ñu fàttali ni Afrique du Sud nekkoon na réew mu njëkk mi nga xam ni fa la ñu njëkkoon a gis li ñu duppee variante betaa mu di benn ci ñeent ci variante yi nga xam ni ci jamono ji moo teree neraw ñi di waa OMS di kuréel gi nga xam ni ci àdduna wërngal këpp moom lañ dënk lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram. jërëjëf euh, Hadj Ndate RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak ñaar. rajo askan wi ñu ànd ak Ndeye Mbour Sembène waxtaanee élection locale yi ñu dëgmal di gox-goxaan yi ak coalition di mbootaay yi juddu boobaak léegi nga ci mujj coalition gëm sa bopp ci njiital Bougane Gueye Dany ay mouvement parti politique yu bari ànd ci wetam ngir ni ñu ko waxee yooyu local Ndeye Mbour Sembène. ak gannaaw ba ñu amalee seen AG si lañ décidé ni dañuy teg si bopp coalition bii di gëm sa bopp kii di Bougane Gueye Dany Nafissatou Wade mooy porte parole bi. la grande coalition gëm sa bopp wax ni yi ko constitué yëpp jox mandat xam ni mooy Bougane Gueye Dany pour mu taxawal nekk président coalition bi. toll nañ si fanweeru parti yu rejoindre coalition bi moom njiit bi sax mu ngi si proxndalu di woo ñi nga xamante ni ñoo faree si kuje gi ngir rek ñu bennoo ba mën a daan kii di Macky Sall. toll nañu ci fukki parti politique wan nañu leen leen. toll nañu ci fukki mouvement. toll nañu ci fukki personnalité. l'honorable député Daour Niang Ndiaye. l'honorable député ancien maire également Kalidou Niass. Abdou Karim Sakho un membre fondateur de l'APR nous avons le sénateur Amadou Barry ci réew mi kan ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu langue politique parce que li ñu bëgg mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekk di toskareloo réew mi mun a seet nu ñu def ba daal di leen fi jëlee. rox ndolu na itam si ndaje bi ngir rek waxtaanee lu ñeel actualité yi moom li mu jàpp moo di nguur gi dañoo laj rek si seenug liggéey. jamono yii nga xam ne bari na ñu nekk ci njàqare yàlla moo yor ay tawam waaye sañ nañoo fàggu ba bu tawee ñu teg ko ci ay canal yu koy yóbbu te mu bañ noo indi li jafe-jafe foofu la àdduna toll mais gis nañu ne inondation yi bari na Sénégal ñuy wu surtout waa Touba banlieue bu dakaar waaye day wane rek tële koo xam ne ñii jiite Sénégal ci lañu nekk nekk boobu ak léegi ñàkk mën dëgër bopp waa grande coalition gëm sa bopp ñoom lu ñu xamle moo ci pare nañ ngir rek boole seen doole ngir mën a jàppale askanu Sénégal jërëjëf Ndeye Mour coalition beneen Pastef seq ka ñoom ak waa PUR daal dinañ tàmbali seen i yëngu nag ci commune bu Golf Sud ay caravane ngir ñaax ndaw ñi rawatina ñu dem war a bindu ji ci liste électorale yi ngir kon yooyu élection di yu gox goxaan yi ñu des ak yooyu élection locale ak gis-gis bi ci président mouvement J'aime le Sénégal am bu sañoon mu ne ñu toxal ko ba beneen Oumar Mbow coalition bu mag bi nga xamante ni Pastef taxaw Ndakaaru parti démocratique sénégalais ak PUR bi ñu annoncé woon fan yi carte d'identité dem ci commission bi Golf Sud ci biir mairie bi commission bi ña nga fa ñu inscrire pour ci élection yi ndax élection yi jëm ni dafa am important na mais ñun gëm nañ ne ak groupe bi ñu àndal mun nañ ko améliorer mun nañ fi indi lu gën ku xool image yi gis ñu nekk ñi ñëpp taxaw ci opposition bi comme ñu si doon wax xam nañ ne kon opposition bi war nañoo mun a ànd te ñun commencé nañ ko fii ci Golf Sud. ci jamono jooju njiitu mouvement J'aime le Sénégal daal dina digal ngir ñu tuxal élection locale yi lu tax Moulay Camara laaj na. organiser ñaari dafa diis ci réew moo xam ne dafa ndóol beneen bi itamit mooy organiser élection boo xam ne déjà nit ñi tàlluñu ko boo leen xoolee inscription euh, ci commission yi liggéeyu élection yi dafa xaw a sa euh, élection daan na am mu ëpp engouement li parce que feebar bee tax beneen bi tamit crise économique bi am yaakaar naa ne réew mi war nañ tal loo xam ne xool ni ñu organiser parce que élection d'accord baax na ci réew mais élection na développé pour réew ginnaaw mandat député yi day jeex juin ñu mën a dajale ñaareel def un couplage des élections wala des élections simultanées mu nekk ñaari élections dañ koy defandoo wala ñu couplé ko rek pour que kii bi gën a oyof ci askan bi ak ci nguur gi. tuxal élection yi wala bañ ko tuxal en tout cas ku jéggi moom moo ngi woy di def sensibilisation am ci banlieue bu Ndakaaru RFM Guédiawaye Omar Mbow. RFM Sport. wàllu sport ñu dalal euh, Cheikh Tidiane euh, fi lekk xëy na jumtukaay bi di ko may dégg dégg bi. <laughs> <laughs> gën a neex ah ma nga noonu baax Cheikh bisimilah. maa ngi lay ziar Guèye. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. daal di ko doo rek euh, wàllu afrobasket bi. Mhm. ndax Sénégal xam na kan lay tasal ci wàllu quart de finale Angola lay daal di doon ni ki ëllëg incha allah ci bu 13 jotee la ñu koy daal di amal la ko waral nag moo di Angola démb ci match huitième de finale gu doon dox ci digganteem ak Égypte moom moo ci mujj am ndam 70 à 62 la ci ànd ak suñu ndaw. ndaw bu ñu fa teewal foofu la ca Kigali di Malal Junior Dia Angola moo di doon adversaire bu Sénégal ci quart de finale yi nii di waa Angola dañoo kon daan équipe bi di bu Égypte ci huitième de finale yi 70 62 équipe Angola boo amoon ay jafe-jafe ngir yegg si fii ci compétition bi loole teewul Parfait Adjivon entraîneur bu Duc ni équipe bu jar a bàyyi xel la. am ñoom équipe yooyu équipe de basket la ñu certes Angola daf nekk perte de vitesse mais demo wane na quand même euh, en beneen kanam euh, door toog la souvent pression aussi équipe favorite bi lay doon te ñun si équipe favorite lañ bokk anglais sont des équipes compétiteurs lañu ñu ñëw jouer basket amatuñ dara luñ ci perte daal man euh, pression bi suñu la nekk léegi ñu ñoo war a gérer pression bi. benn yoon la donc il foog ñu mën a concentrer bu baax a baax a baax a baax pour mën ci génn ndam daal. quart de finale bu nu jàppee dajewaat ndax tam Angola ci atum 2005 la mujjee daan Sénégal ci phase finale bu basket te ca googe jongante ki tàggat tey ji gaynde sénégalais yi moom la ñu taboon mu nekk suwóor bu ci gën a xarañ. ci at mooma ba fi ñu toll ni nag Sénégal jot naa dajeek Angola duma ko ñetti yoon ci Afrobasket ba ca jiitu ci atum 2011 la ñu teg ci atum 2015 mujje ko daan ci atum 2017 bon daje bi jàpp nañ ko àllarba ji ci Kigali Arena Kigali Malal Junior Diagne radio Futur Média. Malal Junior jàppaleen ni fédération sénégalaise bu basket démb ci bataaxal bi nga xamante ni siiwal nañu ko daal dinañoo xam ne ni amal nañu ab commande ngir wutal ay dàll yi nga xamante ni yu adaptable la euh, pour kii di seen meneur di euh, Pierre Henry moom mi nga xamante ni euh, match yi match bi wees woon jotu ko kon boo ko joué la ko waral nag moo di dal dàllam yi nga xamante ni da ko di kon boo ko dafa dal di réer ci ropalaan mi nga xamante ni daal moo ko jëlee woon. volis ba réer volis ba voilà. volis mm. ba volis ba yi nekk. nga xam moom lay. moom lay a ne ni euh, dana daal di kon bokk yegg si euh, foofule euh, ca Kigali bu ko daa defee ki nga xam te moo di Pierre Henry dina mën a kon bokk yëngu ci jongante guñ nar a amal ëllëg suñu digg ak ñii di waa Angola ci wàllu euh, quart de finale bu afro basket jàppale nag geneen huitième de finale bi démb la ko doon amal itam Rwanda bi ko organisé daa mujj toog dañ ko éliminé Guinée moo ko daal di daan 72 à 68 ci goog la jongante kii di Soxna Thiam euh, Soxna Sode caam mm. moom ma nga fa woon itam. Guinée bu kenn xaarul woon nag moo daal di éliminé dëkk bay dalal jongante gi di Rwanda capitaine Cédric Mansaré ak i ñoñam def nañ seen kem kàttan ba gérer match bi waaye itam gagné ko ci njeextalu jongante gi mu di élimination boo xamante ni supporteru rwandais yi indiw ñu ci coow. Euh, suñu équipe am na doole waaye dañu daj ñu yéen ëpp doole def nañu lépp ñu mënoon waaye gis nga lii xew àdduna la mënuñu si dara def nañu lépp lu xale yi mënoon moo am donc sant yàlla te moon idée ñoom supporters yi def nañ lépp lu ñu mën ngir gunge seen équipe bi mu am ndam ca noonee sax le Rwanda daal di creuser écart bi gannaaw ba mu dugalee ñaar fukki poñ ak ñeent ci troisième carton bi loolu nag gënoon a daral xelu supporteru Rwanda yi. ci troisième carton bi am nañu yaakaar dinañu gagné waaye yëpp ngi soppeeku ci suñu benn jour mu defee ay fautes yu bëri foofu la tàmbalee gis ay jafe-jafe bu ko fukki amul moom mi nga xamante ni gisul woon lenn lu dul quart de finale yi def na moom it lu mu mën ba daal di dàpp Rwanda gannaaw ba ñetti minutes képp dese woon jogante gi jeex. ci noone sax ñoom dañoo daal di imposer seen jeu ñii di waa Rwanda boole kook loxo bu jub. ils Rwanda nag fi nekk nii lajj na ci kanamu public waaye itam ci teewaayu seen njiital réew Guinée nag ñoom ñu ngay xumbal gannaaw ba ñu àggee ci quart de finale Afrobasket mu di guléet ci ñoom Guinée nag dina am jonganteem gi di ñëw Côte d'Ivoire boole ci di xalaat àgg ci demi-finale yi Soda Thiam fi ci Kigali ngir radio Futur Media. Soda Thiam Sénégal Angola 13h la ñu koy daal di amal ëllëg Côte d'Ivoire Guinée yi tamit danañ ko daal di amal ci bu 16 jotee ci wàllu quart de finale yi quart de finale yooyu li sax tey jii la ñu koy daal di door euh, jàppale nag euh, Nigéria dana tase ak ñii di waa Uganda ci bu 13h jotee geneen jogante gi diggante Sud Soudan doon ak ñii di waa Kenya ci bu 16h euh, jotee ñu daal di waxtaanee wàllu football ëllëg Sénégal dana daal di tase di waa Togo ci wàllu éliminatoire wala bo qualification lii di coupe du monde Qatar 2022 yëf ëllëg la ñu koy daal di door Sénégal ci yoon googule sax ñoom daal dañu amal seen tàggatu bu njëkk ni ki démb ca stade Lat Dior bu Thiès donte mat ñu woon lu toll ak fukki joor ak benn ñoom la ñu daal di teewee googule séance d'entraînement ni ki tey jii nag normalement groupe bi dina daal di complet ak arrivé yenn ci ay jeunes yi nga xam ñu ngi leen doon xaarandi te ñu doon amal ay jongante ni ki weekend bi ni na ay jours yi nga xam te ne yëkkati nañu seen kaddu séance d'entraînement bi ñu ko doon amal ci stade Lat Dior bu Thiès. dañ siy daal di déglu kii di pap Abdou Cissé ci micro Cheikh Anta Diop. ñu taaxirlu si lëf kon euh, boobee waxtaan ak oh. Cheikh Anta ak euh, Pape Abdou Cissé Pape Abdou Cissé voilà. Ablaye génne ko. macha allah di rafetlu euh, liggéey bi gars yi def si pelouse bi c'est une bonne chose pour le football sénégalais donc euh, gis nañ ne am na évolution e di ñaan yàlla mu continuer comme ça comme ça ñu mën a pratiquer aussi le jeu bi nga xamante ne moom lañ dugg quoi. waaw qualification coupe du monde bi comme ko defe naa obligation waaw parce que loo xamante ne ni euh, dañ ko namm aussi e je pense que dina gën a yëkkati suñu football. donc objectif la tey te ñu ngi ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu si Sénégalais yëpp euh, defal ñu ñaan incha allahu rabbi gunge ñu mais après c' est un groupe qui vit depuis benn instant ñu ngi ànd ñun ñëpp et euh, ak euh, situation bi ñuy dund instant yi nii ak Covid bi ak décalage match yi fële en Europe ak yenn championnat yi c' est normal aussi tey jii nii ñu dund situation yi mais ñu ngi am groupe bu soudé donc ñu ngi continuer si benn liggéey après incha allahu rabbi dinañ retrouver le plus rapidement possible waaw ñun moom gagné rek lañ bëgg coach di laaj te ñun moom lañ bëgg sénégalais moom lañ bëgg. jàppale ni nag ni ki Sénégal dana amal euh, séance d' bu mujj ci stade Lat Dior bu euh, Thiès kii di Aliou Cissé di sélectionneur bi dana daal di amal kon bokk conférence euh, de presse ngir daal di waxtaanee jongante bi nga xam te ni ëllëg la koy daal di amal foofu la ci stade bu Thiès ci bu 18h seen digg ak waa Togo noonu itam waa Togo tey jii danañ daal di kon bokk tàggatu foofu la tamit ci stade Lat Dior bu Thiès ñàkkul ni ñoom itam bu yëf yi jeexee danañ amal conférence de ni ko yoon imposé ci jongante yu ni mel ñu daal di waxtaanee jënd ak jaayum jour yi di euh, transfert yi euh, kii di doomu Sénégal di Youssouf Badji moom daal dina jóge euh, foofule ca Belgique FC Bruges daal di wutali Stade Brestois ni ki ren kon bokk ci première wala bokk ci Ligue 1 bu France lay daal di yëngu Brest jamono gi ñoom ñu ko féete ci fukkeel ak juróom-ñetteelu place ci championnat bu France maanaam place bu mujj bi ci googule classement moom nag waa FC Bruges dañ ko daal di abale Real Madrid moom ma nga doon waaye yëf yi antuwul la ko waral nag moo di discussion yi nga xamante ne daal dañ ko suboon seen diggante ak ñi di Paris Saint-Germain amul dara li nga xamante ne daal sotti na ca ba tax na kii di Kylian Mbappé jàpp nañu ni dana daal di desandi foofule euh, ca euh, Paris Saint-Germain waa Real Madrid nag euh, seen première proposition bi nga xam xamante ne defoon nañ ko lu toll 160 millions d'euros daal di amaat itam geneen indi ko ba 170 millions ak 10 millions de bonus waaye loolu yëpp ñi di Paris Saint-Germain dañ ko daal di gàntal lànk ni duñu jaay Kylian Mbappé Mm-hmm. surtout jamono yi moom. waaw mu ngi dox bu baax. waaw ma ngay ma ngay doxal daal ma ngay doxal daal. jërëjëf Cheikh Tidiane jërëjëf. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu yegg seeg yéen ci chronique culture bi ànd ak Hadj Ndate Diop. dalee nag jàmm. industrie musicale bu Sénégal war nañ ko jooyantiwaat ak indi ci waat yeneen yoon yu yees loola di gis-gisu parolier bi di biram ndekk Ndiaye moom moomu nga xam ni moom moo bindoon way wi ca kanam ca coupe du monde 2002 gis ni foofu rek lañu mën a jaar ngir amal ak production musicale yu mucc ayib mu yëkkati woon lu ni mel ci ab conférence formation boo xam ni doon na ko animé ca grand théâtre bu Ndakaaru ñu fa doon waxtaane wàllu kàddu di maanaam parole ci biir musique bu Sénégal Anna Rocha. borom xam-xam yi nee nañu aar li ko njëkk a tax a jóg mooy def lu rafet waaye nag ci aar boobee gis-gisu artist bi ci société bi muy dund nu muy doxee am na ci solo itam jafe-jafe bi mooy daal di ut équilibre diggante ñaar yooyule ci gis-gisu Birame Ndek Ndiaye. da ngay xool ne am na ñu may déglu bu ñu doon bàyyi xel ne kilifa diine yi mën nañ la déglu. seen doom yi ëllëg. loolu yëpp boo leen bàyyi xel li nga xam li ngay wax. te amuloo droit tamit di quand même agressé nit ñi di wax yoo xam ne du noonu te teggin dafa baax ci lu ne yar dafa baax ci lu ne mën nga wax li nga bëgg te nga teg ko ci yar ak teggin waaw ci waxin bi la foofu nag nit ñi mën ne waxin ni ñuy waxee wax bi am ñoo xam ne dañuy ñëw rek ne ku tuy ku faalewul kenn rek boo dee nga suul sa bopp. secteur de la musique faw ñu gëstuwaat ko andi organisation bu bees bu ko defee ñu mën a taxawal li ñu di dippee industrie musicale bu dëgër. lépp loo xam ne dañ ci dundee mais am na artistes yoo xam ne tey ñu ngi dund booy dundalaat ñeneen. ba créer ay yeneen entreprise yoo xam ne bokkuñu ak ak ñu liggéey. loolu du métier gis nga nit da ngay xam li nga représenté. mag ñi niñ nekkoon di ko sérieux am na nag ci jeunes yi ah, vraiment ñu ñu ñu am conscient de ça parce que métier la loo xam ne am na période boo xam ne boo ñaanee gudd fan dootoo mën a wéy mën nga dem a mënatu waaye waaye ku ñaan gudd fan da nga tële bu fekkee na ne yow préparé wu loo woon da ngay taxaw rek di regretter di jooy man yaakaar na nag pour organiser nag ki gën a njëkk a sérieux mooy l' artiste interprète parce que moom la lépp kii. beneen ndaje dina am fi lekk benn weer atelier boobee ñu war ko jégleel nag bile yoon lii di état de la diffusion musicale rawatina ci lu jëm ci wàllu festival ci Afrique sowu jant. jaajëf kon ñu xaarandi ñetteelug session bu salon journalistique ndaje. jaageen jëf ci déglu bi fii la ñu yem dig daje ëllëg. savon de Marseille Alphé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop déodorant Malaisie